asalaamaaleykum mbokk internet yi nga xamante ne yéenay seetaan chaîne bu bees bi nga xamante ne moom mooy Kaay Seetaan TV Kaay Seetaan TV nag euh, dafa nekk chaîne bu bees takk boo xamante ne fas yéene na ñëw si jamono ànd ak askan bi nga xamante ne mooy askanu Sénégal si ay émission yu am am solo tey jii suñu première émission nekk xamal ma xamal ma dafa nekk émission boo xamante ne dina dalal ay ndaanaan waaye ndaanaan yi nga xamante ne incha allah bu ñu fi dajee dinañ waxtaan si kilifa diine yi nga xamante ne tey bàyyeekoo nañ fii si Sénégal ak feneen fi nga xamante ne fudut Sénégal tey ñu am kilifa bu mag a mag kilifa boo xamante ne tey kuy topp youtube bi dina gis ay conférence am waaye ki nga xamante ne xam na waaye dëgg dëgg dëgg dana xam kan mooy Cheikh Ahmed Tidiane nga laata ñuy ñëw di leen présenter ki nga xamante ne mooy suñu invité tey dañuy bàyyi Soxna faat Faye defal ñu leen ci biographie am kon Soxna Fatou. waaw jërëjëf Mouhamadou Lamine Fane saganu tey bii ñu naan kaan Cheikh Tidiane Gning mi ngi àdduna dëkk bii ñu naan Landu ginnaaw ñeenti at ci la ko maamam jëlee foofu ca Landu indi ko fii ci Grand Dakar ngeen mu jàng lii di alquran waaw daara jooju nekk ca Grand Dakar def na fa ki at doon fa jàng lii di alquranu karim ak téere mag gannaaw loolu ca la demee fee ca Géejawaay école bi ñu naan Imam Sadi fa la jàngee école gannaaw bu amee lii di baccalauréat en yokkaat na te ñetti at ngir yokk xam-xam ci daara yu kawe yi. dara ñoru ko lu dul diine ba tax na looloo ko poussé ba tey jii mu yëngu ci wàllum njàngale. mu fas yéene ñu waxtaane kii nga xamante ne mooy tarixa cheikh ñu naan cheikh Ahmad Tijani Cherif il Fatimi mu fas yéene ñoo xamal kan mooy cheikh. kon mbokki internet Kaay Seetaan TV seen gan a ngi noonu ci seen émission xamal ma. jërëjëf soxna Fatou fay si li nga xamante ne moom nga ñu présenté ki nga xamante ne mooy suñu invité tey bii di Cheikh Tidiane Gningue mu doon turandoo ki nga xamante ne mooy kooku lañ nar a waxtaanee tey di Cheikh Ahmed Tidiane Cherif radiyallahu anhu buñ ne Cheikh Ahmed Tidiane Cherif radiyallahu anhu dinañ ne tarixatu tijaaniya waaye tamit dinañ ne surtout ki nga xamante ne moom mooy gën di mbindeef Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey jii ñu war a waxtaanee kan mooy Cheikh Ahmed Tidiane Cherif mi nga xamante ne moo gane àdduna fi nga xamante ne moom mooy Algérie tey jii ñu am waxtaan bu doy waar Cheikh Ahmed niw naa la. waaw alhamdulillah waaleykum salaam wa rahmatullah Mouhamadul Amine ñu ngi lay fay bu baax a baax di la dalal aussi di am mbégte. ci tamit ci suñu turandoo bi nga xam ne moom nga bëgg a ñu waxtaan. di la ne ñu ngi lay fay. di la ne wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yëpp incha allah ubbi nañ ko fas yéene bokk ak yow ki nga xam ne moom mooy xolu jaamu yàlla mooy Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu mm-hmm. amin mhm. ni nga xamante ne moom leen waxee boo leen ko déggee di ngeen xam ne ndaanaan dëgg mooy wax mhm. waaye tamit di ngeen xam si wax ju dal ji mhm. ku maîtriser ki nga xamante ne mooy turandoomam di Cheikh Ahmed Tidiane Chérif te yaakaar naa ne ki nga xamante ne moo ñu defal léegi biographie am di soxna Fat Faye yaakaar naa dégg ngeen li nga xamante ne moom la di wax si palmarèsam am nga xamante ne noonu la riche ci xam-xam macha allah ñoo ngi lay ñaanal mu yokk bu baax a baax léegi duñ def lu dul ñëw si li nga xamante ne moom mooy suñu question mhm. Cheikh Ahmed Tidiane euh, Gningue mhm. première question bi kan mooy Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu an waaw aouzu billahi min asheytan rajim bi nicmatihi tatimu salihat la hawla wala quwata illa billah alil azim alhamdulillah ala kulli haalin wala abdulillah fi kulli mazharin mhm. wasalaatu wasalaam ala maulana min ladun aadama ila nafi wa radiyallahu an xaatimil awliyaai al muhammadi mawlaana cheikhna ahmada tijaani radiyallahu anhu alqaa'il hada qadamaaya haataaya ala raqabati kulli wali min ladun aadama ila nafi suu wa radiyallahu an jamii alsaalihin bil idlaaq jamian alhamdulillah muhammadul amin duñu mën a guddal ci waxtaan langue arab waaye ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ñu xéewalal gis nga jotaay yu mel nii ñaareel bi aussi ñu ngi sant yàlla ci feeñuwaay bu mu mënte nekk ndax jaam ji li ko war mooy mun nangul yàlla ci feeñuwaay bu yàlla feeñ ñu ngi sant yàlla ci anam boobu balaa may ñëw ci question bi nga ma laaj euh, di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy suivre mm-hmm. di di leen ne képp ku ki nga xam ne da ngaa toog mën ngaa gën a defaraat sa toog mm-hmm. ndax incha allahu danañ ci jëlee yi nga xam ne képp ku am itteewoo ci Cheikh na Amada Tidiane yi da nga am yé da nga da nga ci jëlee njariñ bu bari bari bari incha allahu ndaxte ku mel na Cheikh Tidiane buñ koy wax war na ci jullit ñëpp ñuy déglu ndax ku ndax ñi mu njaboote kese war naa mën a tax ñu déglu ko incha allahu loolu daal xam naa ne incha allah di dégluloo nit ñi xel hmm. Cheikh Ahmed Tidiane nag bu ñu ko doon laaj ci xam naa ne dinañ laaj ci Cheikh Tidiane yi moom mooy kan mhm. moom mooy kan nag buñ ko waxee dañ ci déggee ne Cheikh Tidiane radiallahu anhu fan la juddoo mhm. Cheikh Tidiane radiallahu kan mooy baayam mhm. Cheikh Tidiane radiallahu kan mooy waajuram Cheikh Tidiane radiallahu anhu ban askan la sokkee ko kooku nag xam naa ne loolu dinañ mën a wax as tuut ci biographie am ci tënk ko ndax Cheikh Tidiane yi dundam dafa riis macha allah waaw ñaareel bi mooy danañ ci sawar a wax ndax wax ci Cheikh Tidiane dañ koy nattale jaamu yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne inda zikri saalihin tanazalu rahmat bu ñuy tudd gaa yu baax yi yërëmande bi yàlla dafay wàcc mhm. kon nag Cheikh Tidiane yi ci gaa yi baax yi la bokk kon bu ñu koy tuddu ala kulli haalin yàlla dana wàcce yërmande ñu ngi ñaan yàlla nag plateau bi nga ñu nekk nii mhm. incha allah yàlla na fi yàlla wàcce yërmande incha allahu jërëjëf mhm. ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Ahmed ñi nga mhm. dégg ngeen muqaddima bi nga xamante ne moom la def euh, muy benn introduction bu amaa am solo ci euh, li nga xamante ne mooy suñu émission euh, tey tey Cheikh Ahmed Tidiane ñi nga boo ñuy dugalal ci ki nga xamante ne tey moom mooy dëgg dëgg dëgg borom tarixa bi muy àdduna mm-hmm. ñi nga xamante ne ñooy waajuram ak mm-hmm. li nga xamante ne moom la jot def li nga xamante ne moom mooy jeunesse am mm-hmm. maanaam ndawam si xam-xam waaye tamit si bëgg li nga xamante ne moom mooy yàlla loo ñu si mën a wax Cheikh na Ahmed Tidiane radiallahu anhu euh, moom boo ko seetloo moom mu ngi sokkeekoo ci askan bu kawe ndax askan moom laay jiitu wax ci doo ko wax fan la juddoo ndax boo xamee askanam rek da nga xam dëgg-dëgg Cheikh na Ahmed Tidiane moom mooy kan ndax Cheikh Tidiane radiallahu anhu yàlla mu ngi koy dimbali moom mm-hmm. mu ngi bokk ci famille yonent bi sallallahu alayhi wa ah, ti bokku ci sërif yi nga xam ne mm-hmm. Mm-hmm. yaa ngi dégg seen askan ràññeeku na lool ndax nit ki danañ ko wax ne shérif la maanaam sëti yonantu la mais ñu toppee askan bi ba ci biir dañ ciy gis ay taan dañ ciy gis li nga xam ne dañ ciy jam ay borom xam-xam yu ne ñii du ñu ay shérif mais Cheikh Tidiane radiallahu anhu yàlla muccal na ko ci loolu maanaam askanam lu ñu xam la ci histoire lu ñu xam la ci taarix mhm. ndaxte Cheikh Tidiane radiallahu anhu boo seetloo moom sëti yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom boo seetloo digganteem ak yonente bi sallallahu vingt quatre personnes mhm. moom moo ci dox mhm. kon vingt quatre maamam ñoo dox digganteem moom ak yonente bi te kenn ku ne ci ay maamam moom am na histoire ku ñu xam la ku ñu ràññee la ci ci taarix Cheikh Tidiane nag comme moom ci sëti yonentu la bokk moom radiallahu anhu mu ngi juddu dégg nga ci Afrique ci ban dëkk ci Afrique mhm. dëkk bu ñuy wax Algérie mhm. ci biir dëkk gi mu ngi juddu fu ñuy wax Ayna Mahdi mhm. Cheikh Tidiane foofu la juddu Ayna Mahdi ba muy juddu nag yàlla def na ne mu ngi juddu bisu arxames la Cheikh na Ahmed Tidiane juddu mu ngi tombeeg nag weeru safar gis nga weer bi ñuy wax safar moom mooy weer bi nga xam ne moom la Cheikh Tidiane juddu ti weer googu seetlu nañ ne li ëpp ci ay wali yàlla mhm. ci weer googu lañuy la ñu juddu mhm. Cheikh ndax weer googu li mu làmboo ci ay ngënal mhm. borom xam-xam yi wax nañ ci weer googu lu bari parce que am na ñu jël weer googu détaillé ko lettre par lettre ñu ne safarun boo ko jëlee moo lay jox ñetti xaraf mhm. ñu jël saat bi mhm. mooy safaa maanaam saat bi lu muy tekki mooy mhm. sellal faa bi aussi lu muy tekki mooy fat fatxu kon weer bu sell la weeru ubbeeku la beneen bi mooy raa bi lu muy tekki mooy rafatu ak rahmatu ak refatu dégg nga raa bi lu muy tekki mooy yërëmande ak ekkatiku kon weeru safar yëpp boo ko ëmbee mooy weer gu sell la weer gu am ubbeeku la weer bu am ekkatiku la moo tax képp ku ci juttu en général yàlla daf lay baaxee dara. Mhm. Cheikh nag yi ëpp ci ay wàlli yàlla yi ci seen i histoire weer googu lañ judd. Mhm. mais Cheikh Tidiane yàlla mu ngi koy dimbali. Mhm. mu ngi juddu ci weeru safar. mais ba muy juddu ci weeru safar. mu ngi tombé jouru alxames. le 14 safar am na ñuy wax le 13. waaye le 14 safar mooy li nga xam ne moom moo gën a wér. ci histoire moom Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ci wàllu hijriya mm-hmm. moom fa la juddu mm-hmm. yaa ngi dégg mu ngi juddu bi si arxebes mm-hmm. bu dee ci wàllu weer at euh, gàddaay mu ngi juddu mille cent cinquante mille cent cinquante la Seex na Ahmed Tidiane juddu mooy gàddaay yonent bi sallallahu alayhi boo ko xoolee ci at boobu loolu la borom xam-xam yi di wax ne mawlidul xatmi aami nakshin tajalla sayyidan tahiran wa huwa zukaaw mm-hmm, mm-hmm. dégg nga mm-hmm. mawlidul mi mooy juddu xatmu bi mooy Cheikh na Ahmed Tidiane mu ngi juddu aamu nakshin atub nakshu nakshu boo ko jëlee ci adat da ngay jël nuun muy cinquante xaaf bi muy cent yaa ngi dégg chine bi muy mil boo ko jëlee mooy mille cent cinquante loolu la ñuy tuddee nak nakshin tajalla ci la Cheikh Tidiane feeñee muy sayyidan muy sang taahiran mhm. mu judd juddu bu laab mhm. te wax wa Cheikh Tidiane radiallahu an boobu mujjee naan zuka u jant buy leeral jaami yàlla kon Mouhamadul Amine mhm. boo seetloo moom mu ngi juddu dégg nga euh, bisi alxames mu ngi juddu ci weerab safar dégg nga le 14 safar la juddu Cheikh Tidiane radiallahu anhu mu ngi juddu 1737 yaa ngi dégg ci weer bi nga xam ne moom la ñuy wax miladiya yaa ngi dégg waaye bu dee ci wàllu hijriya mu ngi judd mille cent cinquante loolu mooy juddub Cheikh Tidiane ci lim incha allah. jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane nga yaakaar naa ni nga xamante ne noonu la jot a duggee mu doon lu leer a leer. waaye mu doon loo xamante ne boo ko déggee di nga xam ne ki nga xamante ne mooy Cheikh Ahmed Tidiane Cherif radiallahu anhu mun naa ne lépp dafa tënk ci ay asrar. Mhm. asrar nag bu ma ko waxee mooy ay secret. Mhm. ay secret yu yéemu mhm. parce que dégg nañ fi li nga xamante ne mooy weer bi nga xam ne la gane si àdduna. di weeru safar mun naa ne Cheikh Ahmed Tidiane ñëw nga si soot bi waaye tamit ñëw nga si li nga xamante ne moom mooy faa bi ak li nga xamante xamante ne moom mooy euh, raa mm-hmm. yaakaar naa tamit di ngeen amu naqshi ni nga mm-hmm. xamante ne moom la ko jotee waxee mm-hmm. mu doon ci loo xamante ne mille cent cinquante kon yooyu yëpp ay secret yoo xamante ne yàlla dëxëñ na ko si gane àdduna ki nga xamante ne moom mooy kilifa bu kawe boobu tey yaakaar naa ne ku mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu anhu yaakaar naa tey mm-hmm. Sénégal mm-hmm. wala Afrique sax kenn du mm-hmm. laajte kan mooy Cheikh Ahmed Tidiane yaakaar naan am na fu mu jaar ci xam-xam am na fu mu jaar ci ay eh, difficulté maanaam ay nattu wala ay métti métti ba tey yàlla may ko lii nga xamante ne moom la ko may tey lan nga ñu mën a wax ci jeunesse am lan nga ñu mun a wax si loo xamante ne jaar na ci pour mun a am loo xamante ne dinañ ko jox askan bu ñuy seetaan wala ndaw yi pour ñu gën a bàyyi xel ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Ahmed Tidiane Chérif waaw alhamdulilahi rabbil alamin Cheikh Tidiane radiallahu anhu Euh, jaar na ci jaaruwaay bu difficile bu metti ci àddina mhm. ndax buñ ko nettalee rek di ngeen mën a comprendre ne moom jaar na fu jafe mhm. doog a am li mu am ndax yàlla du samp nit lu mooy yan na la ay nattu yu dëgër a dëgër mhm. dëgër nga antan ko mu doog a la jox li mu lay jox dégg loolu bari ay aay yi nga xam ne dañuy dégg ci alquran ne yàlla di wax ne duma ekkati sama jaam ji lu mooy teg naa ko nattu bu ko antenee rek ci laa koy ekkati avant ñuy ñëw ci loolu ñu mottali ci biographie bi doog a ñëw mhm. Cheikh Tidiane radiyallahu anhu woy juróom bu mhm. góor mhm. bu ñu fàtte mu ngi tudd Mahamad Tijani Mahamad Mahamad euh, ak Muhammad bokkut Muhammad dafa ne Mahamad bi fatxil miimi yaa ngi dégg papam way juróom bu góor mu ngi tudd Mahamad bokkul ak Muhammad ñu bari dañ koy jaawale dégg nga waaye Mahamad la tudd yaayam ñu ngi koy tuddee Lalla Aïcha Lalla Aïcha la wayjuru Cheikh na Ahmed Tidiane radiallahu anhu mm-hmm. bu jigéen judd euh, la tudd juróom bu góor ak bu jigéen ñoom ñaar ñëpp ay ñaari jaamikati yàlla lañu woon ñi nga mm-hmm. xam ne taarix nangu na ne mm-hmm. wayjuram bu góor jaamukatu yàlla la woon bu mag mhm. woy juróom bu jigéen aussi jaamukatu yàlla la woon bu mag mhm. ndax Cheikh ku mel na Cheikh Tidiane radiallahu anhu pour yàlla mën koo andi pour mu jëriñ jaam yi mhm. faaw mu pareel ko ci way juróom bu góor pareel ko woy juróom bu jigéen Cheikh Tidiane yàlla may na ko sens boobu dégg nga ndax albaladu tayyibu yaxruju nabaatu bi izni bi ndax dëgg dëgg famille bu baax léeg-léeg dafay jouer ci doom bi nga xam ne moom moo fi sosu mooy Cheikh na Ahmed Tidiane mhm. radiallahu anhu mhm, mhm, boo seetloo way juram eh, ñaar yëpp muy góor muy jigéen ay wali yàlla lañ woon ki mu ngi tudd Mahamad kii mu ngi tudd Lala ay Aïcha kon ñu xamee ci way juram amaa nag jaaruwaay Cheikh na Ahmed Tidiane radiallahu anhu Cheikh Tidiane ndaw la woon comme li ma wax ci pàppam mhm. way juróom boroom xam-xam la woon mhm, mhm. dafa doon jàngale way juróom bu góor musul dañ di samp daara ci zaawiya bu nekkoon ay namande yi mu di fa jàngale borom xam-xam la woon yaayam jaamkatu yàlla la woon Cheikh Tidiane bu juddoo ci ñaari nit ñu mel nii kon doo am espace vide bi nga xam ne moom ci lay nekk pour mën a noppalu kon nag yàlla dimbali na ko am na ay parents yi nga xam ne ñoo koy présenté àdduna kon nag dinañ ko awale yoon bu baax parce que dafa ñëw fekk baax bi moom Cheikh Tidiane radiyallahu anhu looloo tax Cheikh Tidiane ñu teel koo joxe muy jàng mhm. Cheikh Tidiane njàngam bi doon kéemaan bu rëy rëy rëy mhm. ndax ñi ko jàngal yëpp ci résumé ñi ko jàngal yëpp kenn ku ne buñ ko joxee Cheikh Tidiane dafay ne ah man kii de xaw ma lu mu koy jàngal ndax li ne ci moom mhm. dafa mel ne dafa juddaale ak moom dégg borom xam-xam yi nag ci lañu ñu d'accord ne loolu dañuy wax tanaaxur mooy Cheikh Tidiane dafa juddu yàlla ubbi ko ci mboolee mi xeetu xam-xam yi mhm. bu ko yàlla ubbee ci mboolem xeetu xam-xam yi nag ci ci la moom ci lañ ko jël mhm. pour nëbb ko mhm. looloo tax ñu daan ko jox ñu mel ne ne Cheikh Tidiane dafay jàng dugg na fi génn na fi waaye xaqiqatan moom ba muy wattu alquran ba muy wattu alquran bi ñu ko dugalee alquran muy jàng ci jamono yu mu war a jàng ba muy wattu alquran fekk mu ngi am juróom-ñaari at la Cheikh Tidiane radiyallahu anhu wattu alquran am na ñu wattoon alquran ci juróom-ñaari at ku ci mel ne Mouhamadul Bikri bi ngay dégg ala waaye loolu bokku na li nga xam ne lu néew la ci histoire lu néew la ci taarix Cheikh Tidiane yi Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu dafa ne mhm. ba muy mokkal alquran xaafisu zikri mhm. wasata saabiya ami mhm. wattu na alquran fekk mu ngi ci diggi juróom ñaari atam yi moom Cheikh Tidiane radiallahu anhu kon njàngam jaarwaayam foofu la jàng na alquran ci ba muy am juróom-ñaari at ci la wattu alquran moom Cheikh Tidiane ba mu jugee ci loolu nag ci tënk rek Cheikh Tidiane yi radiallahu anhu ci la ci la dem ñu koy commencé jàngal ay téere xam-xam bi maanaa ay téere fiqh yaa ngi dégg ñu ko koy jàngal di ko ko jàngal Cheikh ba muy am fukki at mhm. fekk lépp luy diine mhm. religion xam-xam bu jëm ci wàllu fiqh mhm. loo ko ci laaj rek moom dala ciy ton ndaw fukki at ba mu koy am ala kulli haal lii nekkoon na ci Mawlaana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu yàlla def nag muy dund noonu di dund di dund ba muy am quinze ans ci la ko euh, way juróom bu góor radiallahu anhu ci la ko mooy Mahamad Atijaani mm-hmm. ci la ko takkalee soxna mm-hmm. ba muy am quinze ans ci lañu may Cheikh Tidiane radiallahu anhu soxna loolu am na borom xam-xam yi ci bind Cheikh al Islam bind na ci mm-hmm. dafa ne zawaja seyxa asluhu ba'da darkin qasda sawnin wa hakaza hunafaa nee na may nañu Cheikh Tidiane yaa ngi dégg soxna kan moo ko may soxna asluhu way juróom yaa ngi dégg nee na ba'da darkin ginnaaw bi Cheikh Tidiane pour takk soxna nee na wa hakaza hunafa ñi sell yi nii lañ daan def mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. bu ñu yëgee ne gis nañu ay doom ñu bëgg leen tënk ci yoonu diine dañ leen di teel a may soxna pour ñu bañ a faqastalu nekk ci li nga xam ne yàlla gërëm ko moo tax ma ne la woy juróom yi dañ ko teel a pare waaye biñ ko mayee soxna ba mu teg ci benn at mooy ba muy am 16 ans ci la natt bu rëy dal Cheikh na Ahmed Tidiane radiyallahu anhu parce que ndawam yëpp dañ ko pare di ko topp di ko jàngaloo di ko wan yoon yu baax yi mm-hmm. waaye ba muy am 16 ci la way juróom bu góor mm-hmm. ak way juróom bu jigéen ci lañ génn àdduna ci benn bis ci benn feebar bu ñuy wax taawun mm-hmm. feebar boobu feebaru jamono la woon yonent bi sax wax na ne képp ku feebar boobu rey yow ci shahid yi nga bokk feebar boobu moo rey way jur way juróom bu góor ak way juróom bu jigéen ci benn bis ñu génn ndoo àdduna imagine ñaar ñi la Cheikh Tidiane amee woon ci kaw suuf ñoom ñoo ko doon encadré di ko teg ci yoon di ko teg ci yoon Cheikh Tidiane ba muy am seize ans gisatul baay gisatul yaay yaa ngi dégg ci benn fan gis nga nattu bi nga xam ne moom la ko yàlla teg mm-hmm. waaye yàlla dafa baaxoo noonu bu bëggee samp nit mm-hmm. dafay teel a éliminer say wayjur mhm. pour ngëneel bu mën a feeñ ci yow mhm. ñoo xam ne yàllaay kese la waaye nit amu ci wàll comme nu mu defee yenu bi sallallahu alayhi wasallam noonu la defee Cheikh Ahmed Tidiane ma may la nag après incha allah boo waxee rek ñu continuer euh, macha allah mhm. euh, yaakaar naa yéen ñi nga xamante ne yéenay déglu émission bi nekk xamal ma li nga xamante ne moom lañ jot a dégg rek mun naa ne alhamdulilahi rabbil alamin mhm. tey mun naa ne noppi alhamdulilah mhm. euh, kontaan nañ mhm. mun naa ne suur nañ si ki nga xamante ne tey moom mooy borom tarixa bi di Cheikh Ahmed Tidiane euh, Chérif radiallahu anhu waaye yéen ndaw yi nga xamante ne tey yéen a toll si xam-xam yéen a toll tey si ut xam-xam war ngeen xool idole bi nga xamante ne tey mooy Cheikh Ahmed Tidiane euh, Chérif si bi nga xamante ne moom la daj ba li nga xamante ne tey mun naa ne àdduna ak àllaaxira lépp mi ci loxom tey yaakaar naa ne ku jara roy la ci lu bëri xam naa Cheikh Ahmed Tidiane mhm. dañuy ñëw ci suñu point bi nga xamante ne mhm. euh, bu ama am solo la mhm. mooy Cheikh Tidiane